bon euh, euh, daa wax ne particulièrement ci la général Moussa Fall. parce que Bossam li tax mu xaw a doy waar mooy. Mhm. ba dañ ko jàppee comme sanction ndax euh. ces relations un peu heurtées. Mhm. ak ceux qui tiennent maintenant ce pouvoir. oui xëy na loolu mën naa nekk sax incompréhension. Mhm. parce que sanction sax mën nañ ko bay wax parce que Moussa Fall parce que sanction bi ci xaw a métti tuuti mooy boo xam ne par incompétence professionnelle la wala nga def des actes yoo xam ne balaa blâmable wala leneen. du dégg. mais euh, foofu la euh, euh, mais bu fekkee ne parce que nag nit ki bu fekkee ne un président de la République chef d'État moom nag mooy mooy mooy tànn ay homme de confiance am. il nomme aux emplois waaw mooy tànn homme de mm-hmm. confiance am. man ngaa doy ñu bañ laa doy man ngaa bañ a doy itam ñu doy la waaye ni ma xamee Moussa ak lim liggéey ci gendarmerie. bi mu ci duggee ba léegi je crois que dana néew ko ko fi def euh, ci sa euh, rigueur am professionnalisme am euh, dévouement ak loyauté am moi je crois que euh, gëwuma ne kenn. ah yow euh, vous êtes gendarme la retraite. donc un, super donc yow fi ngay waxee. Mhm. Euh, da xam nit ki ak ni muy ah, doxee. moo tax nga waxee noonu. voilà mais ah. le problème mooy. Mhm. dafa mel ni am na politique yoo xam ne amuñu même gis-gis bi xëy na peut-être ay situation yu posé wu woon. Mhm. moo moo moo moo ko waral. oui mais loolu man ma ma man man nekk. mais parce que gendarmerie nag dafa am une mission bien établie. Moussa Fall. nekkul ci benn camp parce que prêté nañ ko lu bi muy dugg gendarmerie bi muy am euh, ay responsabilité président yëpp kenn nekku ci woon lenn. Mhm. dañoo dem ba fekk ci gendarmerie. c'est vrai ñu jox koy fonction mu jaar ci légion gouverneur palais ainsi de ba yàlla def mu mu jël gendarmerie. Mhm. bi mu jëlee gendarmerie itam euh, je crois que yóbbu na ko fu sori. Euh, ci patrimoine bi. Euh, euh, nu mu tuddi euh, ba ba toutes les ak for effectif ak ak ak ak ak formation bi ak tam su le plan social. sur le mm-hmm. plan social parce que li li xaw li xaw a doy mooy ñu bari dañ ko bëgg a diaboliser te xamuñu ko sax. li ngay wax nii plan social patrimoine organisation. Uh-huh. jàpp naa ne am na solo trop. Ah, mais les sénégalais. Uh-huh. bokk ñenn ñi bokk ce qu'ils retiennent. Uh-huh. mooy sa gestion de la crise. entre deux mille vingt et un ak deux mille vingt euh, euh, crise bu njëkk ba xam nga mars bu dégg dañ koy crise euh, nekk nekk Jean Baptiste moo fi nekkoon ah, moo newoon. deux ko Euh, te tam c'est pas loolu c'est c'est pas c'est pas la majorité des populations peut-être léegi avec euh, le truc des des, des réseaux sociaux mën nañoo diaboliser ku ne et suite mais la réalité du noonu et puis. la euh, réalité c'est quoi euh, maintien de l'ordre mm -hmm. il faudrait pas savoir c'est pas le général wala lenn qui est responsable du maintien de l'ordre mënut a fab ay troubam rek yóbbu ko. il y a il y a des réquisitions qui sont bu bu soxlaa troupe pour un un service bien bien donné mais dañ koy requérir. d'abord le ministre de l'intérieur par après les gouverneurs les préfets ñoom ñooy rek boo xoolee bu ndee sax sur le sur le terrain d'opération da ngay gis toujours normalement une autorité administrative à côté mhm. kooku mooy requérir le préfet bu demoon ba nga xam ne ay usage de la force wala usage des armes mhm. war naa ne moo moom moo mooy joxe érection moom mooy def sommation yi aussi xëy nag am na y a des yoo xam ne nag boo xam ne ay urgence la on n'a pas encore l'autorité administrative n'est pas sur place booba on va faire face mhm. te événement yi luñ bëgg gendarmerie euh, ak ak ak ak ab république duñ caaxaan mhm. événement yi lan la au juste ils ont demandé euh, euh, ñi ñi ñi ci am ay loro yu demee noonu mais même par parmi personnel gendarmerie ak police yi. on a vu quelqu'un amputé du mais mais mais y' a y' a mhm. eu. a blessé. non ah. am na benn policier boo xam ne image ñu ngi koy xool. di ko dóori birig et ainsi de suite yooyu. mais ma ne la ñoom euh, Moussa Fall moom ñépp a ko war a sumil chapeau. mais ce qu'on lui reproche à tort waa à raison mooy que ne dafa nangu lu Jean-Baptiste Tine bañoon. moo tax remplacement bi am wala c'est juste de la politique. non non euh, euh, loolu dara wéru ci lan la Jean-Baptiste bañoon. mate population par exemple dal seen kaw non non non yooyu yooyu c'est du mauvais procès ñi koy wax lépp amulu ci lenn parce que d'abord événement yi tamit du à Dakar rek ah yeneen région yëpp am na fa. yaa y a ah, ah, ah, kii nu mu tëti en Casamance dans Tamba. mais il a une responsabilité morale. xam ne mooy wër lépp. oui non non non mais munoo nekk at foofa y a des chefs militaires y a des gendarmes wala des policiers ñooñu bu ñu def réquisition ñooñu dañuy requérir. Mhm. on ne peut pas prendre une réquisition euh, di war a intervenir Ziguinchor ne dañ dañ dañ koy jox directeur gendarme non non non c'est nit ñi te duñ no duñ noppi. Mhm. mais eh, dama ne événement yii am. su loolu beneen réew. Mhm. kon ay carnage am. Hmm? ah ils ont été quand même très humains.